bés bu ndakaaru tey dañu am jàkkaarloo ak histoire histoire boo xamante ni ki ko sokke mooy Ousmane Sonko bi ñu ko dégloo ba pare ci la ko juge d'instruction bi xamal nii daf koy yóbbu prison. contrôle amul dañoo décider mandat ko déposer ko mandat dépôt te loolu nag. ndax Ousmane Sonko hmm. répondre na question loolu lañ si mën a wax mooy moom i a il a eu son attitude euh, qui est digne respectueuse des institutions. yeneen avocats yi nag.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 juge bi yokk ci beneen bu bees muy diffusion fausse nouvelle di juróom-ñetteel dafay dem prison moom nag li mu wax mooy gëm naa yàlla gëm naa askanu Sénégal damay fës yéene dakkal sama lekk noonu lay xeexee avocat bu bokk ci ñoom moo ñu ko wax.